macha allah gaal gaa ngi noonu di ñëw bato bi lii moo ñu war a yóbbu bato baa ngi noonu mooyata mooyata ngi doon des moom moo ñu war a yóbbu waaye mooyat xësona ci waaw ah, ndaw si moom dawal. waaw jigéen boobu moo koy dawal noonu moo nekk nii. moo ngi gaare moo ngi moo ngi seere moo ngi takk affaire yi. jigéen la. seere nag ñi ñaa ngi wàcc macha allah ñaa ngi wàcc Attends, Enzo, s'il te plaît. Merci. Foofu lañu

ñuy toogee. da neex rek ci naaj ci fii na fee sedd la mu la neex rek. waaw day amul chauffage. léegi foo la neex rek ñu toog nii place bi dafa nugg. waaw bu la neexee ñu génn fee nag. waaw wala gën a ñu ñëwaat ah. waaw. drapeau suisse. Drapeau suisse. Voilà. Ouais. Voilà, on va atterrir. Ven acá. jël bateau bi di dem Genève Place macha allah dafay am solo. le xalif général moo ngi nii ci bateau bi. di leen seen ay place ñu ngi si dex bi muy Scoop Swing borom dex bi suñu taalibe la jébalu naa njabootam mooy jigéen yi jigéen la macha allah jébalu na macha allah jox nañu ko Fatoumata bintu yaa Rasulullah macha allah moom ak njabootam defe naa dëkk bu ñu dem rek moom lañ koy doxale incha allah moo tax fas yéene nañ def tour dërëm parce que ñoom dañuy soxla ku leen ñuy lif comme ni ngeen di gisee jinne yi rek tamit ku allah waaye yow yaa ngi doy ñii tamit ñii tamit ñenn ñi ay touristes lañu aussi ci yeneen dëkk yi lañu jóge ñëw ñu def ci macha allah ay le roi des jinne benn sànq rek lañ amoon ay gan Cheikh Tali Bouya ndeysaan moom njabootam euh, ndeysaan euh, ñoom ñoom macha allah macha allah soxna soxna vraiment macha allah waaj a dem neex waaw bato baa ngi waaj a dem waaye tekki na buum bi heure bi moo jot ah.

jëlaale ndox mi see down there? You go on. Oh, okay.

le chauffetage. looy xalaat. xalif général xalaat nag aussi suma xarit suma doomu ndey ñu siini laay appel suba la defe naa ne déggante nañ. yëkkati naa délégation macha allah a ajaratu xadiba ak euh, taalibe yi mule mule yi ñoom Matar ñoom doyen defe naa ko waajal suba ak ñoom Morso pour dem ndeysaan teewal ma foofu euh, ndeysaan madame so fan yee moom ma ko doon fàttali ndeysaan nga ibul si ni dafa kenn la ci man ñoo koy nuyu bu baax di ko ñaanal bu baax ci appel bi suñu appelu maam euh, yàlla defal ko jàmm defal may may may ñu ndam incha allah ndam rek la am yàlla aar ko sàmm ko Sénégal aussi yàlla def fa jàmm ndax fan yi dafa yëngu yàlla yàlla def fa dugg sedd guy ñoo suñu xele ngi foofu di ñaanal mule mule di ñaanal taalibe ak jullit ak yëpp yàlla na yàlla delluwaat jàmm Sénégal macha allah waaw vraiment fan yi réew mi dafa yëngu lool yàlla delloo jàmm Sénégal yàlla delloo ci xelu tuub réew mi si xam ne nañ nguur day jeex macha allah lu ci dafay jeex bu ko defee ñu waxtaane ko daal jàmm dellu ci réew jëlaale ndox ak seen drapeau bi euh, rouge blanc ah, man sama drapeau rouge blanc noir macha allah Yeah. Well, it says this on the parking lot side, it's what we're back. Okay, it's trying to get through up there. Yeah. yeah. We just keep going. It is coming up like peak. ah Irobo kontaan na voilà. waaw lii kontaan na. ah jeex na nag. loolu rek laa ko mën a dégg Darou Lahi am na fi samp kër Darou Lahi mule mule waaw macha allah. Okay.